maa ngi dooreel samay kàddu di di di féliciter ak tamit di dalal jàmm suñu rakk yi nga xamante ne ñooy nouveau bachelier yi euh, tey jii nag suñu woote bi du dara lu dul rek bëgg a euh, xamal population thiessoise bi que ne ñun ñi nga xamante ne ñu ngi si daara ju sonn ji dañu sonn te it vraiment bëggoon nañu aussi tamit autorités yi nga xamante ne ñoo ngi au niveau de Thiès ñu jàppale ñu. ngir condition yi ñuy dund fii nii métti na métti goo xamante ne daanaka mënuñu koo sax expliquer te coordination bi doon na loo xamante ne ñun ñooy doon magu ëllëg te ñun aussi tamit ñoo fi représenté Thiès kon ñu ngi woo mbooleem koo xamante ne tey jii autorité nga Thiès nga ñëw nga jàppale ñu. waaw en général euh, booy def genre activité yu mel nii sax ñu si bari dañ naan ñii dañuy politique mais pour ñu leeral que ne ñun amuñu casquette politique ñun. autorité yëpp la ñuy mettre au même pied d'égalité que mu nekk autorité yi nekk tey jii ci gouvernement bi ak autorité yi nekk tey jii ci nguur gi parce que période bi ñu toll dafa sensible sensible boo xam ne boo waxee sax ñu yaakaar que ne ay nit ñoo lay influencer wala ñu yaakaar ne da nga bokk ci benn euh, parti politique alors que ne wul noonu mooy que ne Idrissa Seck dafa doon koo xamante ne maanaam ñun Thiès ñun ñoo ko Euh, teg ci kaw suñu conseil départemental donc moom mooy première autorité bi nga xamante ne moom moo moo le premier la première autorité concernée moo waral daanaka ñu tudd turam ñu gis aussi que ne taxawaayam ci coordination bi des na ñun du ñu dugg si ay appartenance politique yi yooyu loolu noonu c'est c'est conviction la mais maanaam taxawaay maanaam bi nga xam ne mu ngi ko waran taxaw dañu gis que ne taxawu ko loolu nag la ñuy ñaawlu bu yàggul dara ñu demoon këram euh, recevoir wuñu te ma même moment mu ngi recevoir ñoo xamante ne ay yeneen raison lañ dëkk ay Diourbel ay feneen ak feneen ma yaakaar que ne moom priorité am dafa war a nekk étudiant Thiessois yi euh, daanaka loolu lañ ci mënoon waaw li ñu bëgg mu mu leer mooy ñu taxawuñu si suñu fi fi fii ñu nekk ndax ñu nekk ci condition yoo xamante ne tane na daal parce que fii nii pour nga mën a réussir sa côté jàng bi dangay fekk nga mën a am benn assise sociale alors que tey jii fii ñun suñu étudiants yi dañuy ay trente personnes si si néeg Euh, tey ji du ñu am ay ticket de restauration tey ji am ñu ay jumtuwaay pour jàng donc gis nañ ne si wàllum autorité am na si ñoo xam ne ñu ngi jàppal te ku mel ni Emile Abdou Ciss te nga xamante ne mooñ tey ji may benn appartement ba may ñu photocopieuse loolu dañ koy wax parce que man lam yaskuri naa sa lam yaskuri laa ku def lu baax dañ koy wax loolu du politique du dara donc dafa def lu baax ñu wax ko te tamit ni mu defee lu baax noonu donc lañ bëgg la ñuy ñaanee tamit yeneen kilifa yi nekk Thiès que ça soit ñi nekk ci opposition bi ak ñi nekk ci gouvernement bi ñu ñëw jàppale ñu te yàlla tax parce que ñun seeni doom lañ ñun ay ndaw lañ yoo xamante ne mérité nañ ñu jàppale ñu quoi